liggéey nañ ko def weer wala ñaari weer yoon dañu tojoon di ko defaraat comme nii dañu sewee ba la ñuy dox fa lañ doon xëy di fa yenn kon mooy firnde mu ngi jégalu kàddu macha bi la ñuy ñaan nga ñaan si place mun ñaanal yaakaar nañu yàlla dana ko moom mu waxal ñëpp yóbbaale ñu géew waaye ñu ngi lay ñaan sa barke waajur sa barke maam mm-hmm. nga ñaan place bi ñu bañ a am benn ndog nga ñaan itam mm-hmm. yàlla ubbi ñu ndax dañu koy fay mm-hmm. mu gaaw te ñu bañ am benn muskila dénk nañu la loolu gàll nañ la loolu comme ni ñu ko gàlle suñu mbokk yi nga xamante ni ñoo fi ñëw di ñu baax te ñoo xamante ñu sant Mbàkke keroog bi ñu ko ubbi ñu bari ñëw nañu fi tabarakallahu suñu diggante ak ñoom jaxasoo na rafet na ñu nekk Brescia ñëpp tabarakallahu mën nañoo wax ni li ñu seq si suñu diggante yi macha allah kon nag loolu sa xel na si dal islam moo ñu boole te islaam ji moom ñëpp matal nañu ko ñun li ñu wër suñu diggante ak ñun nag si dëkkandoo yi bu buñ nee ñoom ñooñu si man wax dëgg yàlla mën nañoo wax ni ñooñu si man si rafetal te eh, itam wax dëgg yàlla du li nga toog moo tax ñu lay seedeel ñii nga xamante ni ñoom la ñu bokkal mhm. waa ko suñ tubaa gi ñëpp tabaarakallaahu taxaw gi ñu ñu taxawee eh, jéggi na dayoo ba mënuñu ko wax kon nag yàlla na yàlla fay la yow yaa leen ñaax si loolu yaa leen wan ni leen yoon bi nii la ba kenn ku nekk mën a ñime bara jaar si yoon bi kon nag ñaanal ñu yàlla lii nga xam mun nañu sumb incha allahu ba boo fi ñëwetee déwén incha allah fekk ñu matal loolu lañ la sas xam naa kàddu yi kàddu sant la rek gërëm jëmale ko si sëñ dafa fekk ne yàlla dogal na ajjuma bi ñu julli nii si kër Serigne Touba gi Serigne Fallou dafa am lu mu wax lu am solo te mat naa si seede te alxuraan dafay wax ne wa maa sahimnaa illaa bimaa alimnaa ndax bu fekkee ne ba fi Serigne Mourtala jógee ba léegi Serigne Maam école Al Azhar yi toll na si cinq cent soixante trois mu tabax benn université kon wax dëgg yàlla te sama doom di jàngale si al azhar kon wax dëgg yàlla loolu cant la ak ngërëm xam ni la fi waajuram bàyyi woon loolu la fi continuer muy jàngale ak yar ndax yonent bi dafa waxoon ne ali moom wax si boobam jàng ak yar ñooy ànd kon nag loolu laa waxoon ni danaa ko seede si kanamu président Bokar di la sant bu baax di la gërëm si taxawaay bi am na solo kon nag yàlla yàlla dëgëral la yàlla yàlla sàmm la guddal saw fan si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaw di yëkkati ay kàddu cant ak ngërëm it di feeñal suñu mbégte parce que mbégte bii moom ñu am tey wax dëgg yàlla mbégte boo xamuñu sax naka lañ koy waxee sa teewaay fii wax dëgg yàlla nekk na mbir moo xam ni xamuñu naka lañ ko war a exprimer ñu ngi lay ñaanal yàlla sëriñ bi yàlla na yàlla guddal sa fan wéral waaw sa liggéey bi ngay def ci àddina bi yëpp waxuma Sénégal waaye ci àddina bi yëpp gis nañ ko yàlla yàlla kàttanal la ba nga mën ko àggali ci ak sa sago waaw di la sant nag di la gërëm xam naa ni temps bi tey ñu sax ñu nekk fi di wax dañu la woon nañu nuyoo rek ziar sant la vraiment pour yow it nga ñaanal ñu ci bërëb bi waaw ñu ngi jéggalu nag ci kàddu yi bu baax baax asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, bismillah rahmaani alhamdulilahi rabbil alamin arrahman irrahim maliki yawm iddin salawatullahi wasalaamu ala sayidina wa jërëjëf ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen ndokkeel am mbégte defe naa wax nga ne am nga mbégte wante defe ñun ñoo ko fekkente ne xam nañu lu ñu war ndax wóor na ma ne tey sëñ Mbay sëñ Ababacar Si di mhm. sama xarit di sama mag wóor na ma ne bu ma waxoon ne ma da ngeen am barab bi naa jóge Sénégal ñëw ubbisi ko mhm. dinaa ko def ndax beneen bi tamit liñ ci jëlee lu bare mhm. ndax sëñ Murtala bi muy wax yu mel nii kërul lislaam la doon wax kon kooku bàyyi woon na xel ne mag ñooñu lislaamal luñ am ci lañ ko am tey bu ngeen ko bedde woon féetale ko feneen ak keneen lu nit ku ñëw rek mën nga ne suma këru diw këru diw bu boobaa dëgg la ñoom ñëpp sax ku leen tudd ñoo xam ne li tax nga tudd leen ndax ci ko am waaye du tee mu niru lu niru luy ñaar wala ñett kon su ngeen amee barab mel ni muy barabu lislaam ngeen wax ñu ñëw fi firndeel na bu baax ne li li tax ñoo ñu jóg yéen yéen a ngi ci. damay dem doon ubbi fële ci benn dëkk xamatuma dëkk bi ku ñëw ne man naa ngi bokk ci kër waa Cheikh Sidi Asma waaye su ma soxlaa fii du ma tàggu kenn dama ñëw jël caabi bi ma ñëw feneen xaw ma kooku ne ma barab bi kat ñoom ñeen ko kii waaye ñoom seen barab bi dafa amoon ndox ñoom it ma xam ne ma ne kon ñun lii mooy li tax ñoom ñu jóg mais yéen yéen a ko jëmmal ndax euh, yëf yi du du du du du du du ñiiroo du ŋaayoo du fiirante parce que ndax nit ñu nit yàlla yooyu xam nañu yàlla am na loo xam ne ñemewuñ ko ku ci xalaat képp sa moroom lu dul jàpp nga ne am na lu mu am sa moroom am lu am nga bëgg ca kenn bëgg ci la nga am ku ne xeeb la nga am mais bu fekkee ne ñoom sax xalaate nañ noonu rek yàlla da leen koy woon parce que yàlla kenn du ko defee noonu ndax dafa bari le te ñoom ku ci ne ba nga ciy wut ñu ngay wut da ngay da ngay wut rek dem da ngay wut sa morom bu ñëwee sax day def ne moom amul moo tax sëñ Touba li mu doon waxee damay wax ne honnêteté intellectuelle bi sëñ Touba wane ci Matlabul Fawzayni masaayix yi Sayyidina Jilaani wa Saad li wakk bu kullu wirdin yuridul murida li xadaratillahi walan yaxida sawaa'un intamaa ilal Jilaani aw intamaa li Ahmad Tijaani aw li siwa min aqtaam ñooñu honnêteté spirituelle boobu nga xam ne maanaam jàpp nga ne ku ne la fa am yow sax danga caa soxla ndax bu dee ci wàllu jàngale dañuy wax ne honnêteté intellectuelle mooy nit def dara walla mu bind ko nga jël ko ca moom te waxoo ne foofu laa ko jëlee nga gis nañ moom itam ni muy defee ci téere yi ma ay ay masalikul jinaan day wax ne ci kum kum jële dara rek référence bu mu jël day wax ne foofu laa ko jëlee fexe ba dajale ko nag ba mu ko dajalee tam te boo boo gisee ñoom ni ñuy xamee ku ci ne téere ba téere buñ ko nit di ko bind xam-xam lay bindee ndax du carrière yi fi boppam kon xam-xam boobu yaa ci mën a jëlee loo xam ne boo ko génnee mu mel na lu bees mais donte sax da ngaa jël référence ci kenn da nga koy tudd ndax da ngay jàpp woyofal sa bopp parce que da ngay defe ne te moo ne boo boo ne woon maa ko wax it kenn du ko werante ndax yaa ca dugal lu yaa ko ca génne loo xam ne xëy na ka ko def sax génnewu ko ca bu ko defee nag ñoom mel ne buñ gisee ñëw taalib yi ñëw fii ñu gis ma wax ma ñu ngeen nekk ak ñoom ñoom itam ñu di ko ñu di ko wax lañ fa def ne ak lu mu mën di doon yéen ñoom a ko bokk bu ko defee ñu gis ne kon loolu dafa mel ni bitti bi xijra boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax man kaana hijratuhu ilallaahi wa rasuulihi fa hijratuhu ilallaahi wa rasuulihi immigration bu fekkente ne da ko def te yàlla tax ña ko def ñëpp te yàlla tax moo leen di dajalewaat ku ne xam na ni fii bu ngeen fii ñëw wut fi ay barab yu mel nii wala nangam mën nga am sax xamal ñu ci bari xamante woon wala bu la ngeen ni ñëw fii ñëw dajal la ngeen xamante indiwu leen fi da ngeen ñëwoon kon kenn ku ne di def sa liggéey su yàlla defee ngeen ñëw ba dajaloot nag ci lu baax nga xam ne kon mooy yonent bi loolu mu doon wax ni immigration bi ci am solo. mooy bi nga xam ne da koy def te yàlla tax xëy na jàpp ngeen ne bi ngeen di ñëw wut alal la mais bi ngeen ñëw ba egg xam ngeen ne li du wut alal lii boo defee sa barab boo xam ne yaa ngi ci def sa ñaari dërëm sa ñett ku ne dajal sa yëpp ngeen def ko fi te na leen ne du fi du fi du ngeen ko da ngeen ko fi bàyyi kooku lislaam la man damay wax baag ne leen euh, euh, li lislaam li mu loon ci ci ci Europe wala ci àdduna bi eh, nga xam ne fu ci nekk fu ci nekk amoon na fa bu mel ne bu ngeen demee Andalus bu ngeen demee ci fu fii ci Italie gi bari ay barab yoo xam ne dañ ko dañ ko làq wante dañ dañ ko dañ ko banaliser nga xam ne doo ko xamati waaye lépp l'islam waaye day fu mel ne Espagne nag daf ci ëpp moom dafa fa nekkoon dañ fa am lu ëpp juróom-ñett téeméer at wala lu ko jege am fa doole am fa ay ay ay château ak i ak i ak i am fa am fa ay structure am fa yoo xam ne boo fa demee ci architecture bi sax da ngay wax léegi la mais léegi ñu dem ba ñu dàq leen fa génn leen ko génneen wu ñaaw nangu yëpp boo demee ci biir seen pale yooyu ay jàkkaa nga fa jullikaay nga fa woon mais li ko diin li ko def lépp mooy gëm-gëm ba dañ xam hmm. nga jullikaay moom jullikaay la ndax alxuraan dafa rek xaalatil arab amanna xullum te uminum walakin xuloo aslam naa dafa wax ne am na loo xam ne farq bayna islam wal iman dafa am loo xam ne islam mooy li ngay pratiquer ci kaw loolu la jibril waxoon yonent bi sallallahu di ko ko wax lii islam mooy nangam mooy nga gëm mooy nga nang julli mooy biir la tax alxuraan xàjjale ne ne ab jullit laa ne muslim laa bokkul ak nga ne mu'min laa parce que muslim mën na koo doon nekk naa fekk di julli na ñëpp di na ñëpp te fekk lu yàq ci yoon diine ji moo ko def mais gëm-gëm nag bu nekkee ci nit kam ko bokkal duñ mën a tàqali ko moo tax man innamal mu'minuuna ixwa loolu la yàlla wax yàlla waxul innamal muslimuuna ixwa imaan bi gëm gëm-gëm mooy li mën a tàgg taqali nit ak nit ci bokk kooku kon ñun dañoo gis firme yi rek fii kon ngeen téye ko bu baax ñii tamit loolu rek la ñoom loolu la ñu xam sëñ Tuubaa musul xamuñu sax yooyu ñi seq mbir mi tamit xamuñu loolu bu ma masaan génn léeg-léeg bañ masaan dem ci conférence ci biir ma ànd ak sëñ ma tase sëñ Abdou du ña fa doon nekk ay Moustapha Cissé ñoom Moustapha ña mais du da di teg fee man la lu muy def man la koy defal lu muy wax man la koy waxal nga dem ci sëñ Babacar moom itam noonu la mel ci ñun lu ne day wax loo xam ne duñ ko fekk sax nga xam ne wax yooyu yow yow mi koy yow mi ñu koy nettali doo ko jàppee aw tagg mais dañ koy dañ ko jàppee ne kii def laa bëgg a soññ pour nga gën a góorgóorlu mm-hmm. loolu moo tax eh, ñun tam bu ngeen defee lii lu tax ngeen def ko parce que xëy na xam ngeen xëy na xamul leen leneen ci suñu biir ñii tam xëy na xëy na lii da ci <laughs> ci kii mais leneen ci suñu biir moom dafa lii daf ko firndeel mm, ndax tamit euh, loolu la ñun am na loo xam ne xam nañu ndax noonu euh, dafa am benn bis ma ma mm, mm, ma ma am ndaje mu ma dem Euh, fekk fa ñoom kii mbay ñuy jàng kenn dama présenté umul xe kenn ci waa kër gi bëgguma tudd turam ñoom présenté kenn ma ne ko bërki dem laa ko mujj jot téléphone nga xam ne xamul ne sax de defe ne xaw ma ko sax nga xam ne nun suñu biir dara duñ ci umpante mais gëm-gëm nag bi mu ko ko laajee moo yëfi biir la moo tax alxuraan xajale ne ne ne ab jullit laa ne muslim laa bokkul ak nga ne mu'min la parce que muslim mën na koo doon nekk naafeq bi julli na ñëpp ci woor na ñëpp te fekk lu yàq ci yoon diine ji moo ko def mais gëm-gëm nag bu nekkee ci nit kam ko bokkal duñ mën a tàqali ko moo tax man innamal mu'minuuna ixwa loolu la yàlla wax yàlla waxul innamal muslimuuna ixwa imaan bi gëm gëm-gëm mooy li mën a tàgg taqale nit ak nit ci bokk kooku kon ñun dañoo gis firnde yi rek fii kon ngeen téye ko bu baax ñii tamit loolu rek la ñoom loolu lañu xam sëñ Tuubaa musul xamuñu sax yooyu ñi seq mbir mi tamit xamuñu loolu bu ma masaan génn léeg-léeg ba ñu dem ci conférence yi ci biti ma ànd ak sëñ ma tase sëñ Abdou Aziz du ña doon nekk ay Moustapha Cissé ñoom Moustapha ña nga gaay mais du da leen di teg fee man la lu muy def man la koy defal lu muy wax man la koy waxal nga dem ci sëñ Babacar moom itam noonu la mel ci ñun lu ne day wax loo xam ne duñ ko fekk sax nga xam ne wax yooyu yow yow mi koy yow mi ñu koy nettali doo ko jàppee aw tagg mais dañ koy dañ ko jàppe ne kii def laa bëgg a soññ pour nga gën a góorgóorlu mm-hmm. loolu moo tax euh, ñun tam bu ngeen defee lii lu tax ngeen def ko parce que xëy na xam ngeen xëy na xamul leen leen ci suñ biir ñii tam xëy na xëy na lii <laughs> da ci kii mais leen ci suñu biir moom dafa lii daf ko firndeel hmm, ndax tamit euh, loolu la ñoom am na loo xam ne xam nañu ndax noonu euh, dafa am benn bis ma ma ma ma am ndaje mu ma dem Euh, fekk fa ñoom kii mbay ñuy jàng bu kii dama présenté mu kenn ci waa kër gi bëgguma tudd turam dama présenté kenn ma ne ko bërki dem laa ko mujj jot téléphone nga xam ne xamul ne sax de defe ne xaw ma ko sax nga xam ne nun suñu biir dara duñ ci umpante mm, mm. Mm. bu ko defee yéen nag lii dafa firndeel rek li ngeen di def ngeen góorgóorlu ci te jàppante ñoom ngeen xam ne mënu leen a tàqali ko kon su ngeen ko defalee seen bopp nga xam ne yéen a ko defal seen bopp. yéen a ko defal seen bopp bu ñu demee fële ca kër ga dañ naan ñëpp kër lislaam la bu ngeen fa ñëwee lu ne lu ngeen fa bëgg a def def ko fa fii tamit man so ko defee yooyu ñun dañ koy gis def rek muy ak yal na leen yàlla sàmm. yal na leen yàlla euh, dëgëral yal na leen yàlla téyal boppam jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah voilà kon mbokk yi mu ngi noonu sëriñ Mame Mor moom Cheikh Mamadou Mourtada yaakaar naa sëñ Mourtada yàgg naa liggéey ci lu mel nii yàgg naa wax ci lu mel nii moo tax sëñ Mame Mor discours am yëpp buñ ne suñ mbokk tijaan yi wala kër nanga mën leen déedéet yooyu sax daanaka mën nañu wax ne dépassé nañu ko looloo tax mu xëy ñëw fii ci zawiya bi nga xam ne dañ koo faggu El ñoom ñi nga xam ne ñoo fi ñaan ko mu ñëw seet ci barab bi sëriñ bi ne leen lum xat-xat danaa ñëw bu ngeen ma ko teeloon wax sax danaa gën a mën a teel a ñëw ndax lii kat démb lañ ko ko wax rek daanaka eh, ci 8 eh, juin bi waaye bi mu xëyee fii la njëkk a ñëw ñoom it ñu rafet lu ñëw bi bu baax a baax a baax a baax ñaan ko yit mu ñaanal leen ci barab bi ba bu ñu ci noppee bu ñu koy tijji mu teew fi waaye it dégg nañ fi ay kàddu yu am solo ñoo xam ne ci kilifa yi lañ bokk fan lañ jàngee institut Al Azhar dégg ngeen muy fàttali bi Serigne Mourtala ñëwee ci école institut Al te Serigne Cheikh Thioro ñu koy ziare bu baax a baax a baax jël ko ne ko waxal ci turu doomu soxna yi bi ñu waxee ba noppi ñu leeral Serigne Mourtada mu ne leen ndax ko am na ko ay doomu soxna yu fiy jànge ñu ne ko waaw mu ne ah dajale lim bañ fay caat bi yëpp delloo leen ko ne leen nag xaw moo ne ay doomu soxnaa ngi fi waaye kon la ñu jotoon a fay delloo naa leen ko bi ngi noonu voilà sëñ Abdou Lahad a ngi noonu moom mooy ànd ak sëriñ Mame Mor nekk saa boo gëstoo gis ko macha allah ci jataay bu am solo fii eh, ci barab bi nga xam ne dañ ko fàggul Alaaji Maalik kon ñu sant ñëpp di ñëpp jërë ngeen jëf macha allah بأمته وارحم بأمته واستر لا واجبران عربي الله اغفر لأمته وارحم بأمته واستر لا واجبران اغفر لأمتي وارحم بأمتي واستر لا واجبرا عربي الله اغفر لأمته وارحم بأمته واستر